ay ci jërë ngeen jëf euh, suñu mbokk internet euh, yi nga xam ne yéen a ñu bàyyi xel au niveau fi nga xam ne moo di ci diwaanu Feeling euh, Dakar TV comme ni ñu koy defee saa su ne fi nga xam ne mën naa ne Wally Seck wala defee concert wala képp koo xam ne mën naa ne acteur la wala actrice la képp koo xam ne mën naa la as musicien di di ci diwaanu réew mi la nga xam ne moo di concert actuellement ñu ngi ci diwaanu Kaolack nangaan Wally Ballago Seck wala fi amal li nga xam ne moo di as concert moo di Bercy Saloum gis nañ ne ba mu waroon a am niki lendemain de la Tabaski dafa mujjoon annulé ndax taw bu métti métti am fii ci diwaanu Kaolack nangaan mais gis nañ ne tey lañ ko jàpp moo di dimanche bi te Wally Seck dafa jugee euh, fële nga xam ne moo di ci diwaanu bu euh, li nga xam ne mën naa ne moo di as euh, li nga xam ne moo di as concert donc dañ leen di wan entrée bi lan moo fi jot a xew exact nit ñi préparation bi ak nit ñi daanaka ni ñuy ni ñuy ni ñuy jëlee li nga xam ne moo di seen ay ticket et tout donc gis ngeen porte bi déjà mën naa ne nit ñaa ngi taxaw te bàyyeeguñu euh, li nga xam ne moo di euh, porte bi na li nga xam ne mën naa ne moo euh, sécurité gars yëpp ñu ngi ni taxaw muy wàllum organisation bi mooy xool mu di ticket pal ñoom ñoo géré lépp tout ce qui est naa ne képp kuy ñëw di jënd si ñoom ñooy xool sa ticket dagg ko et gis nga yeneen gars yëpp ngi doon taxaw ñii di takk déeri tamit ñoom ñu ngi def seen liggéey boobaakale gis ngeen yi ni mu bëree fii ci diwaanu Kaolack Ndangaan fii nga xam ne moo di stade Lamine Gueye bu Kaolack gis ngeen gars yëpp ngi noonu di dagg li nga xam ne moo di seen ay ticket dëgg sax li nga xam ne moo di ay ticket mais teewul euh, nit ñaa ngi noonu taxaw nee naa tey desul kenn euh, mag ndaw xale euh, ñëpp ñëw nañu pour fekkee li nga xam ne moo di Bercy Saloum bi tey ñu ci bëri ñu nañ jàppoon ne lii di Bercy Saloum bi tey jii nii daanaka mën naa bañ am mais booy xool ñi ci diwaanu Kolbu Nangaan rang bi na dell dell dell dell dell mu nga commencé si diwaanu bu tribunal bi ñëw fi nga xam ne mën naa ne moo di ci buntu stade bi ñëpp a ngi taxaw noonu booy xool isaay mënaguñu sax bàyyi li nga xam ne mën naa ne moo di porte yi booy xool xam naa ne dañuy am ay quelques réglages yoo xam ne mën naa ne ñu ngi koy euh, def euh, daanaka euh, pour mën a bàyyi li nga xam ne moo di porte yi fii ci diwaanu Kaolack nag mën nañ jàpp ne ndaw ñi def nañu mobilisation pour mën a ñëw fekk si ki nga xam ne mën naa ne moo di Wally Balago Seck pour mën fi amal li nga xam ne mën naa ne moo di concert moo di Besti Saloum chaque lendemain tabaski la koy amal fi nga xam ne mën naa ne moo di ci diwaanu Kaolack Ndangaan mais booy xool tey ji ni ni ma ko waxee léegi rek concert bi dafa jotoon a def la nga xam ne mën naa ne as fomm booy xool tey jii jii nii lañ ko mujjee def Wally ba mu jugee fële nga xam ne mën naa ne moo di ci diwaanu bu Louga euh, pour amal euh, li nga xam ne mën naa ne moo di euh, a ngi noonu taxaw tey nee naa la koo xam ne mën naa ne des na mën naa ne tale bi sax dafa fees dell dell dell dell dell dell dell ñu bëri mënoon nañ jàpp ne lii di concert bi du am la nga xam ne mën naa ne moo di as réussite mais mooy ñu ci bari commencé nañu ñëw pour mën a fekk si fekkee li xam ne mën naa ne moo di Bercy Saloum lii dëkk bi tamit tamit gis nañ euh, le président Ousmane Sonko sortie bi nga xam ne mën naa ne jot na ko def euh, ni ki tey jii nii euh, daanaka jot na def ay révélation yu doy waar donc dem ci plateforme boobu noonu di Feeling Dakar TV mën a gis exact li nga xam ne mën naa ne kii di président Ousmane Sonko wax na ko wala ki nga xam ne tamit moo di njiital réew mi le président Macky Sall war na amal li nga xam ne mën naa ne moo di as discours ni ki lundi bi incha allah rabi wax par rapport ak li nga xam ne mën naa ne ndaw ñi mag ñi xale ñëpp ko ci xaar jëm ci par rapport ak troisième bu mandat donc loolu day ñàkk dafay baax toujours ñu leen fàttali ne exact Euh, mën naa ne euh, li nga xam ne mu ngi xew euh, ci diwaanu bu réew mi mais ni ma la ko waxee léegi gis ngeen nit ñi ni ñu taxawee noonu booy xool góor ñi fees nañu seen rang jigéen ñi aussi def nañu li nga xam ne mën naa ne moo di seen ay rang pour mën a ñëw fekkee si li nga xam ne moo ne beex si saalum fii nga xam ne mën naa ne moo di ci diwaanu bu Kaolack ndangaan rawatina stade Lamine Gueye bu kawlak nee naa la kenn desul te booy xool Wally Balago sekk moom mën naa ne mooy artiste principal bi moom dafa bëgg tey jii amal nga xam ne mën naa ne moo di euh, conservé dafa mel ni commencé nañoo bàyyi euh, li nga xam ne daanaka moo di euh, ticket pour nit ñi war a mën a ñëw dugg si dafa mel ni maa ngi gis ne soxna yi ñoom ñëpp ngi commencé ñëw di dagg si li nga xam ne mën naa ne moo di ay ticket ñoom ñëpp a ngi nga xam ne mën naa ne moo di seen ay sañse bu ñu mënee wiiri xool ca beneen fànn ba pour mën a exact xool man ay xaj moom vraiment ama donc euh, pour ñu mën a xool ci euh, sur l' autre côté pour vous montrer euh, nit ñi ni ñu daggee ticket exact pour mën a ñëw fi nga xam ne mën naa ne moo di si douane dinaa la tey kenn desul. booy xool euh, ñëpp préparé nañu euh, pour ñëw dugg si euh, fi nga xam ne moo di ci diwaanu bu Kaolack rawatina beex si Saalum bi gis ngeen soxna yëpp a ngi noonu daanaka di ñëw di dagg li nga xam ne mën naa ne moo di seeni ay ticket benn par benn donc gis ngeen rang bi noonu rang bi xaw naa sori lool lool lool lool lool lool lool def seen rang góor ñi def li nga xam ne mën naa ne moo di seeni ay rang gis ngeen ko noonu a baax a baax a baax a baax donc nga xam ne yéen a ñuy bàyyi xel nga xam ne moo di ci diwaanu bu Feeling Dakar TV restez connectés duñ yëngal lu xew ci Bercy Saloum bi incha allahu rabbi euh, dinañ leen ko jox euh, live and direct euh, fi nga xam ne moo di ci doon bu Feeling Dakar TV gis ngeen góor ñu noonu c'est la presse. non c'est la presse c'est la presse. ban côté. Feeling Dakar. Feeling Dakar juste rek. waaw waaw waaw waaw. waaw bàyyi ma ñëw ku ko dugg ci biir. juste dañuy far for ay détails pour mën a yóbbu fële pour ñu projeté aussi télé télé bi loolu la ñuy liggéey ñu dimbali ma c'est la presse c'est la presse c'est laa génne euh, gis ngeen euh, mën naa ne euh, ñii di toute la police daada di leen jaajëfal bu baax baax ci liggéey bu am solo bi nga xam ne mën naa ne ñu ngi koy def boobaak léegi gis ngeen képp kuy dugg rek ñoom ñu ngi yor li nga xam ne mën naa ne moo di seen xaj vraiment pour lépp pour sécuriser li nga xam ne mun naa ne moo di concert bi mais est-ce que li wóor na xaaj bi euh, ni mu tëbee nii est-ce que wóor na da ko xaj bi euh, ñu tee nii est-ce que wóor na man man loolu rek a nekk sama problème donc on avance xool euh, ci biir concert bi aussi li nga xam ne mën naa ne mi ngi fay xew ñu continuer wan leen. information yu leer Feeling Dakar yaa ngi Feeling Dakar